Bonjour au sommaire de cette édition. Vague de contestation à Thiès, Sédhiou, et Kaolack. Les populations réclament un meilleur cadre de vie à Fandène. La section de Pastef dénonce les contrats agricoles et le retard dans le lotissement des actes de lotissement. Ndiaganiao manque de tout interpelle le chef de l'État. Des brassards rouges à Mabo, c'est dans la région de Kaolack. L'insécurité et le vol de bétail inquiètent les villages de l'arrondissement. À Sédhiou, communes réclament l'électrification de la zone. Un conflit israélo son indignation et dénonce la, les condamnations diplomatiques timides et timorées du gouvernement sénégalais. Le Forum social sénégalais annonce une grande marche en faveur de la Palestine dans les prochains jours. Le secrétaire général de l'ONU profondément perturbé par la destruction d'un immeuble qui abritait les organisations sociales. Et puis en sport, Coupe CAF, quart de finale aller, Coton Sport Giraffe ce dimanche à 13h. Les joueurs du Giraffe de Dakar préciseront le secrétaire général Leonard Diagne que vous entendrez dans nos différentes éditions. Et puis, 16e journée de la Ligue 1 sénégalaise, l'AS Leader qui reçoit le Stade de Mbourg. Voilà pour le sommaire de développement dans un instant. El Hadj Malick Ndiaye. Assane Thioune qui assure les opérations techniques euh, pénurie de récurrente d'eau dans la commune de Fandène nébuleuse dans les contrats agricoles retard dans le lot dans la délivrance des actes de lotissement Autant de préoccupations soulevées par la section PASTEF, les patriotes de la commune de euh, Fandène. C'était à l'endroit du maire au cours d'une rencontre correspondance depuis Thiès Babacar ah, Les patriotes de la commune de Fandène constatent pour condamner les pénuries récurrentes d'eau qui affectent la zone centre. Nous pouvons citer le problème de l'eau au niveau de la commune de Fandène, particulièrement au niveau de la zone centre. Vous regardez commune. La disponibilité d'eau dans la semaine est de trois jours. La section PASTEF de Fandène demande des comptes à l'équipe municipale sur les contrats agricoles dont celui du GIE Sursaut de la Lane. Jean-Baptiste Diop, porte-parole du jour. Il y a des permis agricoles qui ont été affectés à des organisations. Ces organisations ont eu des partenaires. Donc il y a eu un contrat qui les lie. Donc ces contrats-là, nous doutons de la gestion de ces fonds par les responsables de ces organisations. Depuis il y a eu des fonds qui ont été collectés par la location. C'est beaucoup d'argent. ce que nous exigeons par rapport à ça également. Qu'est-ce qui retarde les lotissements de Fandène Des réponses du maire sont attendues. Le troisième point, c'est par rapport au lotissement. Donc, au niveau de Fandène, il y a beaucoup de jeunes, particulièrement qui veulent des parcelles à usage d'habitat, donc qui ont fait leur demande. Donc, ces demandes restent village de la commune de Fandène lance ainsi l'alerte pour un changement aux prochaines locales Babacar Ndaw la section Pastef de Fandène interpelle le préfet du département de Thiès sur les fiches de recensement initiées par le maire de Fandène dans le cadre de la politique de l'emploi, une démarche qui ne rassure pas les patriotes de Fandène, Jean Baptiste Diouf, l'un d'eux avec Babacar Ndaw. Le quatrième point, c'est par rapport aux campagnes de recensement des jeunes. Donc nous, nous savons que l'État a eu un programme de recrutement, d'emploi, particulièrement des enseignants, enseignants. Donc nous avons vu ces temps-ci, Monsieur le maire a introduit des fiches au niveau des villages pour faire le recensement de ces jeunes-là. Ce que nous demandons est que, que cette affaire soit éclaircie dans la tête des gens, parce que nous doutons de l'utilité de l'utilisation de ces informations à d'autres fins également. Euh, c'est ce que nous avions à, partager avec vous. L'avenir du parti PASTEF, ça, a démarré depuis. Mais aujourd'hui, on s'est rencontrés vraiment pour essayer de faire la massification. Et cela va continuer. Parce que vous avez vu la rencontre, il y a plein de jeunes qui sont ici également. Donc, il y a des femmes également. Donc, cela va continuer, Inch'Allah. Lors des prochaines rencontres, nous vous vie des dames, de grandes dames. Donc euh, je pense que c'est important. Au niveau de la commune également, comme c'est un jour de samedi, il a beaucoup d'événements, c'est pour cela beaucoup de gens sont s'excuser à venir à cette rencontre. Je répondre qui disent que l'actuel pouvoir a tout donné à Fandène. Ah mais ça, c'est un par rapport à ce qu'il a vu. Nous ne disons pas que l'État n'a rien fait au niveau de Fandène. il n'a pas tout fait, ça il faut le dire également. du, euh, de la zone bas-fond de la commune ont battu le pavé pour interpeller l'État du Sénégal sur la situation de la localité. La zone manque de tout, pas d'eau ni d'électricité, encore moins une infrastructure sanitaire digne de ce nom. Ces populations qui dénoncent un manque de considération de la part des autorités veulent bénéficier des programmes mis en place par l'État du Sénégal. Docteur Lamine Diouf, porte-parole du collectif que nous écoutons, il est avec Moustapha Sall.

la route goudronnée qui est inexistante dans la zone Bafon. Vous avez vu la route qui est derrière nous, puis le tronçon Cette route est dans un état de dégradation très avancé, dont la traversée relève vraiment du parcours du combattant. En plus de ça, il y a le manque et mais également la cherté de l'eau dans la zone Bafon. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des villages qui, ne disposent toujours pas d'eau. c'est au 21 siècle, c'est inacceptable. Oh, Nous avons entendu le ministère de la Santé dire qu'il faut laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Si on n'a pas d'eau, avec quoi on va laver les mains Pas d'eau, pas de salubrité. Pas de salubrité, santé. Pas de développement. Ouais parler en quatrième lieu du problème de la santé. Ici, la zone Bafon ne dispose que d'un seul poste de santé. Ce poste de santé manque presque de tout. Il n'y a pratiquement pas de médicaments, Si tu vas au niveau du poste de santé, si on te prescrit des médicaments, tu seras obligé de faire des kilomètres pour aller chercher les médicaments. c'est inacceptable. En plus de cela, le personnel est insuffisant et le plateau technique est vraiment au rabais. Ça, on doit corriger cette injustice-là. L'autre chose, c'est par rapport à l'éducation. Ici, la zone Bafon ne dispose pas de lycée. C'est y, a des, il y a une déperdition la conséquence avec des élèves qui parviennent pas à faire des parce qu'ils sont dans des conditions qui ne les permettent pas de faire des études correctement. par rapport au problème de l'électricité, par rapport au problème de l'eau, par rapport au problème de la santé, par rapport au problème de la route, tout ça a fait l'objet de promesses électorales avec le gouvernement de Macky et le gouvernement, les Mais jusqu'à présent, ça reste à l'état de promesse, il n'y a rien qui a été fait dans la zone. On on a entendu le PRACAS, on a entendu le PRODAC, on a entendu tout programme que vous pouvez imaginer, mais la commune de Ndiaganiao n'en a jamais bénéficié. Ndiaganiao est complètement oublié dans ce programme-là. Oui. Et je pense que ça, c'est plus qu'anormal. Si l'État ne fait pas quelque chose, que nous allons faire La population est plus que mobilisée pour dire que rien ne sera plus comme avant. Les choses vont bouger. par A ou par B, ils vont bouger. Ça, ils ne vont à subir. Les gens, viennent ici, ils trompent nos parents, ils votent pour la zone. Ça, ça va céder. Et puis, réaction du maire de la commune de Niaganiao à la suite de la manifestation des populations de sa localité. Le maire Gan Nying estime que lui et son équipe ont beaucoup fait pour de meilleures conditions de vie des habitants de cette zone. Vous aurez l'occasion des villages de l'arrondissement vol de bétail, le manque d'eau potable, électricité et des infrastructures sanitaires constituent des vieilles doléances qui tardent à être réalisées. Le mouvement Ça suffit doy et les populations de l'arrondissement de Mabo menacent des sanctions, l'avance présidentielle lors des prochaines locales et les populations de villages de l'arrondissement de Mabo dans le département de Birkilane ont porté des brassards rouges. Elles réclament de l'eau potable potable de l'électricité pour les localités qui sont dans le besoin. Sanor Cissé est membre du mouvement Ça suffit doy Le manque d'électricité, le manque d'eau, surtout potable, le manque de plateau technique médical, l'insécurité, le vol de bétail. Monsieur le Président, notre localité est l'une des plus religieuses du Sénégal. Par conséquent, tout le Sénégal s'y converge périodiquement pour faire leur ziar leur Magal extra. Parmi les villages qui accueillent des hôtes à de pareilles circonstances, nous pouvons citer Djamal chez Mam Abdou Sissé, Darwanar chez Mam Alun Sek, Mabo chez Imam Elaj Modouka, Darussalam, Touba Saloum, Prohan et Darussalam Kaba. Chérif Abdoulaziz Diaw, euh, secrétaire général du mouvement Sansiki Population de l'arrondissement de Mabo. Aujourd'hui, on parle d'équité territoriale, ce qui n'est pas justifié ici que achetons nos voitures à des millions. Chaque voiture ne dure pas deux ans. Même les garanties que les entreprises nous donnent, des populations qui cotisent, construire leur poste de santé d'abord, ensuite payer l'infirmière qui est là-bas. C'est au niveau du village de Kersader, des villageois qui cherchent de l'eau et qui attendent jusqu'à 2 heures du matin pour pouvoir obtenir de l'eau. Et vous allez jusqu'à Kermademba, le forage qui est là-bas nous empoisonne les animaux, quand ils boivent ça, des avortements de, de petits au niveau de Kersade, il n'y a pas d'infirmière chef de poste parce que celle qui est là-bas a été recrutée par les villageois. Ce sont eux qui cotisent avec les bonnes volontés. Récemment, nous avons écrit une lettre pour déposer au niveau du ministère de la, de la Santé. cette lettre a été accusée de réception, mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas vu l'infirmière venir. Fadel se trouve dans la commune de Dionik au niveau de Mabo, alors que le poste de santé de Mabo polarise tous les villages environnants. Vous connaissez la dotation des médicaments, comment ça se passe avec les comités de santé, de développement sanitaire. Donc vous comprenez donc ce que vivent ces populations-là. Le mouvement Ça suffit d'Oina interpelle qui, selon ses membres, sont des urgences, ont Mabo Mamadou Camara a FM. À ces les jeunes des six communes du Pakao réclament avec véhémence l'électrification de leur terroir. L'absence de ce service d'éclairage entraîne des désagréments et plombe toutes les initiatives de développement local. Le mal a fini d'impacter toutes les localités situées entre Sédhiou, Kolda, ont-ils fait savoir ce samedi. C'était lors de presse tenue à Les jeunes de plusieurs villages de six collectivités territoriales du Pacao dans l'est de Sédhiou, regroupés au sein du mouvement Pacao en avant, sont déçus des nombreuses promesses sans lendemain d'électrification de leur localité. Ils l'ont fait savoir ce samedi à Diana Malari à l'occasion d'une conférence de presse. Pape Daouda Sissé, le chargé de communication du mouvement Pacao en avant. la commune de Djanaba, la la commune de Sakar,

Dakar, Séni Diallo de Malari et Sidi Adafé de Kolibantan. Ces derniers saluent les efforts entrepris par l'État du Sénégal tout en souhaitant l'accélération des procédures d'électrification du Pacao. Daouda Sidibé, le premier adjoint au maire de Kolda, figure aussi parmi les invités et a même souhaité l'implication des autorités déconcentrées dans les activités de plaidoyer en vue, dit-il, de créer une synergie dans la recherche de solutions à l'absence du de Sédiou et celle de Kolda dans leur de jonction. Moussa Dramé Sédhiou Sud FM. À l'inverse du PACA, la commune de Gounamp, dans l'extrême sud du pays, le maire rassure de la disponibilité de l'électricité et de l'augmentation du dispositif d'éclairage public avant la fête de la Tabaski. Malang Vieux Cissé informe également du reprofilage de la voirie commune communale à hauteur de 15 millions de francs CFA et de bien d'autres efforts en cours pour l'émergence de la capitale du Balantokunda. Ces propos sont recueillis par de la presse, quand je suis arrivé, j'ai dit deux priorités essentielles. C'est la lumière, c'est les routes. Aujourd'hui, Dieu merci, les lampadaires sont là. Ils ont déjà commencé les travaux préliminaires. Je profite de l'occasion pour euh, adresser une salutation et des félicitations vibrantes à M. le Président de la République. C'est son projet, hein. c'est la vision du plan qui est aujourd'hui traduite en une réalité concrète dont les populations en ont besoin. Grom était dans le J'ai dit oui, si on ne reconnaît pas ce manquement grave, ça veut dire qu'on ne trouvera jamais la solution. On s'est battu comme il se doit. Les lampadaires sont là, les techniciens sont là, je pense qu'avant la prière de la Tabaski, Gourom sera éclairé. L'autre ambition que j'ai, c'est les routes. Hein. C'est pour ça, à chaque fois, je me demande au Goudombois de prier pour moi, de prier pour Goudom. Le combat que nous sommes en train de mener se concrétise en réalité. Que Goudom puisse sortir de ça là. Cette année, vous avez vu, j'ai essayé de gratter un peu les routes. C'est ce qu'on appelle le repouflage des routes. Je l'ai fait avec une valeur de 15 millions de francs CFA. J'ai fait le tour des routes aujourd'hui. ne sont pas goudronnés, mais ils sont praticables. Il faut travailler pour construire ce goudron plat. Il faut travailler pour son développement. Vous savez, l'homme politique est différent du politicien. Le politicien pense à la prochaine élection. L'homme politique pense à la nouvelle génération. pour laquelle mon combat essentiel, c'est faire en sorte qu'aujourd'hui soit différent de demain et que demain soit meilleur qu'hier. Et puis euh, nous parlons de la crise israélo-palestinienne avec cette déclaration de la LD Debout. Le secteur exécutif national exprime son indignation totale et absolue devant une telle situation exige de son gouvernement, le gouvernement sénégalais, de sortir de son confort diplomatique et protocolaire à se joindre à la lutte légitime des démocrates et citoyens du monde épris de justice se mobiliser en faveur d'une Palestine euh, État euh, indépendant et libre. La LD Debout appelle la à prendre ses responsabilités devant l'histoire et d'arrêter le vagabondage guerrier d'un premier ministre israélien en mal de popularité. Enfin, la LD euh, pour la LD Debout, Israël doit être con contrainte donc par tous les moyens à respecter la dignité humaine, la, la dignité humaine et à se conformer aux droits international en commençant par la résolution du Conseil de sécurité et à se soumettre au condamnation, le ministère des Nations Unies au Proche-Orient ainsi que les représentants d'Israël. Donc, euh, oh, l'armée israélienne a indiqué avoir menacé ce dimanche une frappe sur le domicile du chef du bureau euh, du Hamas dans la bande de Gaza. Le président américain John Biden, lui, euh, a dit sa grande inquiétude au premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au sujet de l'escalade de la violence en cours en réaffirmant son soutien aux droits israéliens et se défendre contre les attaques de, à la roquette du Hamas. il est 7 heures Habsa Elimane s'installe dans quelques instants pour le journal en asalaamaaleykum juróom-ñaari waxtu moo jot ci suñu studio nekk fii ci ndakaaru ci cité kër góor gi jot ci bépp bànkaasu rajo Sud FM yi ne ci biir réew mi bisimila leen ci xibaar yi ci pàcc bu njëkk bi li ci nar gën a fës nag bokk na ci wàllu ñaxtu yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku fépp ci réew mi rawatina ca ak Kaolack ak daal Sédhiou ñi nga xam ne nag ñoo faree ca Fandène ñoom rawatina section Pastef ñoom li ñuy ñaawlu mooy contrat yi ñuy amal jëmale ci wàllu tool yi njëkk ñaaw nag moom daal dara dara amu fa moo tax askan wi daal euh, di soñ euh, njiitu réew mi mu ñëw jàppale leen fële ca Maabo nag moom askan wi ñoo génn ngàlloo seeni morso yu euh, xonk li leen métti mooy ñàq kaaraange ak sàcc bi ñu sàcc juri euh, foofule ci jamono joo xam ne nag euh, ca Sédhiou luy toll ak juróom-benn commune ñoom la leen soxal mooy ñu am courant nag yeneen i euh, gox yi nekk ci biir réew mi dinañ waxtaane it fitna bi am ci diggante Israël ak Palestine fi mu toll ni ëpp téeméeri doomi aadama ñàkk ci seen bakkan conseil sécurité bu ONU sax dana ci amal ab ndaje tey jii ci dibéer gi ci jamono joo xam ne LD Debout mi ngi koy ñaawlu bu baax a baax rawatina taxawaayu nguur gi ci mbir mi forum social social euh, sénégalais nag di xam ne dana amal ab doxu ñaxtu bu mag a mag ngir jàppale waa Palestine euh, ci jamono joo xam ne yi secrétaire général bu moom li ko métti daal mooy dal bi ñu dal ci benn immeuble boo xam ne daal ña fa nekk mooy wàllu task xibaar yi ak li ni xeetoo dinañ ci toftal it wàllu tàggat yaram rawatina coupe CAF quart de finale bi ci diggante Coton Sport ak jaraaf tey jii ci dibeer ji waa jaraaf yi nag fi mu toll ni daal pare nañu bu ñu sukkandikoo secrétaire général bi di Léonard Omar Diagne dinañ ko déglu ci biir xibaar yi dinañ waxtaan nit fukk ak juróom-benneelu journée Ligue 1 bu Sénégal AS Pikine bi nekk ci bopp yi day dalal tey jii ci dibéer bi waa Sàdd Mbuur Assane Thioune lañ ciy àndal. Absa Elimane Wane asalaamaaleykum dal leen nag jàmm ci euh, xibaar yi ma leen ko doon waxee ci euh, bopp bi dañu koy door fale ci commune bu Fandène foofu nag li métti askan wi mooy daal ndox ci boppam bu ñuy naan la ñu fa gisul leneen it loo xam ne ëlëm na leen mooy lépp lu jëm ci wàllu contrat yi jëmale ci wàllu euh, tool yi moo tax it mbir mi soxal lool waa section Pastef bi faree foofule Pastef les patriotes nekk foofule ci commune bu Fandène ñu déglu si Babacar Ndaw parti Pastef les patriotes bu commune bu Fandène mi ngi naxarlu jafe-jafe yi nga xamante ne seen commune bi mu ngi ko jànkoonteel ba tax na ñu ëmb ko ci ñeent poñ ak ah, di ko laaj monsieur le ministre directeur de cabinet politique di maire bu Fandène laaj bu njëkk bi lan moo waral jafe-jafe ndox yi Fandène am Malick Diakhaté fekk baax ci Touba Peykook yor kaddu bés bi Fandène fi ñu nekk ni tey daanaka suñu forage bi mu nekk fii ci Kusum daanaka ñetti fan la ñuy am ndox ci biir semaine bi kon donc loolu jéggi na dayoo exemple lañ jël fii mais dëkk boo dem ci biir Fandène am na feneen askan bu Fandène di laaj ne dëkk bi màgg na lotissement yoo xam ne ñu ngi koy dégg projet yu bari ñu ngi dugg di dagg ay hectares yi hectares yi hectares te ñoo xamante bi depuis yàgg na suñu classe gi war a am kër amaguñu kër war a am lotissement bu war a def defaguñ ko te loolu aussi bëgg nañu vraiment ñu taxaw ci bëgg nañu ñu leeral ñu loolu lépp leneen li nga xamante moom mooy tund Fandène bi nga xam ne dafa naat ci wàllu pombay tey tool yi nga xam ne dañ ko signé ay contrat ak ñeneen rawatina GIE Sursaut de la Lande parti euh, Pastef bu Fandène mi ngi si laaj ministre bi maire bu Fandène mu indi si ay tontu. dañoo bëgg ñu càmbar ko a indi ñu ko ñu xool yorin wi ndax seel na wala seelul bu seelul ñu xool na lañ koy améliorer wax dëgg ñu leeral li nga xamante ni bi moom mooy contrat yi nga xamante ni bi tey tool yi nga xamante ni bi mi ngi ci biir fan leen te ñu am ay xët yoo xam ne tëgg nañ ko digganteem ak maire bi ñu waxtaan ci xool est-ce que loolu noonu maire bi mu ngi ciy gis boppam waa wala déet su fekkee ni lafay ruuse ñu xam askan bi ñu leeral askan bi parce que alalu ñëpp la kon kan ku ci nekk war ngaa xam lan ci biir. ndaw Ousmane Sonko yi ko si ñeent fukki village yi nekk si commune bu Fandène daje samedi ji ci Fandène muy coordonnateur section yi ak délégué yi muy ndaje bu njëkk nag boo xamante ne lan lan seen plan d'action ngir jubali élection locale yu 23 janvier 2022 Babacar Ndaw Thiès Sud FM ñi teewal Pastef les patriotes foofu la ci euh, fànn ñoom nag daal ñu ngi laajte euh, préfet bu département bi daal mu leeral leen jëmale ci euh, këyit yi nga xam ne daal moom la ñuy jël ngir jëmale ci wutuma xëyu ndaw yi rawatina nag yenn xibaar lañ ciy def muy fiche de recensement yi ñoom daal dalul benn yoon seen xel ñoom ñi nga xam ne ñoo fare ci Pastef les patriotes foofu la ci fànn ñu déglu si kenn ci ñoom di Matar Jaxate ci micro Babacar Euh, ku ne dégg na euh, gouvernement bi taxawal na ay ay ay ay kii yoo xam ne pour xëyu ndaw ñi léegi nag euh, suñu maire donc gis nañ ni ay fiches yu daw yoo xamante ni peut-être am na ci ab xët boo xamee moom dafa mel ni moom lañu moom mooy demandé comme par exemple ci misaal benn ndaw bu jógee ci village sàngam war a ñëw def demande bu ñëwee fiche bu koy remplir turu ki nga xamante ni bi moo nekk maire moo ci ne ci kaw te yaakaar nañu loolu euh, dafa tey xel donc moo tax ñu ñu bëgg lu leer bokk na ci aussi tamit information yi ñu joxe. muy nekk suñuy suñuy suñuy suñuy information suñuy filiation maanaam suñu tur suñuy suñuy numéro carte d'identité yi demee noonu loolu mën na am ñu utiliser ko foo bi ku xam na ni na ay élection lañ jub si kenn xamagul ndax parrainage dina am am ak du am donc yooyu yëpp ay ay ñaaw njort koo ñaaw njort ba pare parce que ku yooyee appareil bi donc de nga utiliser loo xamante ni bi yow yow mi nga xamante ni da ngaa nekk à côté doo ko mën a comprendre donc yooyu yëpp ay jafe-jafe la yoo xamante ni bi bëgg nañu kuñ ci leeral kon donc loolu moo gënoon nekk sabab ndaje bi tey ki doon àddu ñuy teewlu mooy Matar Diakhaté bokk ci session Pastef les patriotes bu euh, Fandène dañuy jógee ca Fandène jàll ca Ndiaganiao foofu nag euh, askan wi si boppam ñoo génnoon ci euh, mbedd mi ngir daal ñaawlu bu baax a baax seen i nekkin du ndox du courant du lenn it loo xam ne daal askan wi soxla na ko ngir mun a dund na mu waree bu fa am moo tax daal fi mu toll nii ñu ngi dal bu baax baax bare it di daal bëgg programme yi nga xam ne moom la nguur mën caa bokk ñu déglu si ki yore kàdduk euh, kuréel bi nga xam ne moo ëmb askan wi fare ci euh, dëkk yi nekkee foofu la ci commune bu Diaganiao docteur Lamine Diouf lay wuyoo ñu déglu ko ci euh, micro Moustapha Sall. dama ñëwoon tey pour wax ci turu collectifu zone Bafon bi ndax dañ fi daje pour wax suñuy doléance yi nga xam ne dafay yàgg ci zone bi te kenn andiwu fi ci ay saafara. du gouvernement Macky Sall du gouvernement yi ko ji. dañu wax ne dañuy dajaloo tey pour wax nga xamante ni devant le monde loolu moo ñu metti. yaakaar naa mën nañ ko nangul ku li ci jiitu mooy problème courant bi oh, oh. problème courant bi lim indi ci ay jafe-jafe ma rappelé ni village euh, commune Ndiaganiao bi 38 villages ñoo ko ñoo ko constitué ci 38 villages yooyu juróom-benn kese ñoo am courant te ci juróom-benn yooyu amul benn dëkk ci zone Bafon bi nga xam ne bokk nangu problème courant bi dem na ba impacté suñu vie sociale ndax suñu suñu euh, na leen ci mbas mi am na li ñu doon wax téléenseignement maanaam dañuy toll fii ñu leen di jàngal fële ñu war di leen seen ordinateur yi wala ñu war di leen seen smartphone yi mais loolu boo amul courant bi nga branché pour charger téléphone wala nga pour charger sa courant fan ngay jàngee loolu

ndox loxo yi bu setul munoo am maanaam boo amul ndox munoo setal say loxo boo amul ndo boo boo munul setal say loxo doo mën a wër te boo wërul doo mën a am développement. leneen li ci tegu mooy problème bu poste de santé bi ak santé bi. benn garab amul ci poste de santé bi donc il faut ñu dem ay pharmacie officine pharmacie privée pour mën am seen i garab te loolu aussi dañ ko war a corriger. poste de santé bi également benn kese la ci zone Bafong bi loolu mënul satisfaire les bu population bi. boo demee foofu aussi personnel bi doyul plateau technique bi doyul homme politique bu bi. dañ wax suñu doléance mu jël ci ay ay promesse maanaam dinaa def lii dinaa def lii dige ba tooy bu passé mu fate bu élection yi ñëwaatee bu ñëwaat ndax suñu papa loolu lañ wax ni dafay jeex yëpp muy PUDC muy PNER mooy euh, programme national d'électrification rurale muy PRACAS programme yi am solo ñu nekk ci PSE bi yëpp maanaam le plan Sénégal émergent maanaam population Ndiaganiao bi particulièrement population zone ba fi bu gisuñu ci seen bopp te loolu dañu jàpp ne ñun ci ci Ndiaganiao lañ bokk ci Sénégal lañ bokk ci réew mi lañ bokk fii ay ñu yaru ñoo fi nekk mais ñu am fayda ñoo fi nekk. addu ñuy teew lu mooy docteur Lamine Diouf yore kàddu ko askan wi nga xam ne ñoo fare ci euh, village yi nekkee ci commune bu euh, Ndiaganiao ginnaaw gi ñu defee seen ndoxu ñaxtu boobu di ñaawlu bu baax a baax anam gi nga xam ne ci la ñuy dund maire commune bu Ndiaganiao euh, jël na ci kàddu moom gan ñi ngi dénk suñu correspondant suñu ndaw bi ñu teewal foofule ci Mbour di Moustapha Sall ni donte sax askan wi ñu ngi ñaxtu bu baax a baax muy muy xam le ne moom ak équipe bi daal def nañ seen kéem kattan ngir askan yu mën a dund na mu waree bu ñu jugee foofu lee ca njàgga ñaaw ñu jàll ci yeneen askan yoo xam ne it dañoo mer ba futt ñoom it ngalloo ay euh, sagar yu xonk bokk euh, ci euh, téeméer ak fanweeri village nekk ci arrondissement bu Mabo ñoom nag li leen métti mooy ñàkk kaaraangeeg jur gi nga xam ne moom la ñuy sàcc saa ne naka it waa njàgga ñaaw ñoom it amuñu ndox ak courant ak lépp loo xam ne daal askan wi soxla na ko. ngir mun a dund na mu euh, waree moo tax mouvement yi ñu duppee su suffit doy na ak askan wi daal fi mu toll nii nee nañu bu ñu moyu daal ci élection yi ñu jëm euh, danañu dal bu baax a baax ci ñi nga xam ne daal wala boog danañu sanctionné ñi nga xam ne ñoo fay wut ay poste ñu déglu si Mamadou Camara askan wa yeewoo téeméeri dëkk ak fanweer nekk ci arrondissement Maabo ci département Mbirkilaan ci région bu Kaffrine dañoo takkoon ay morceaux yu xonq daal di dox doxu ñaxtu la ñuy laaj nag mooy ndox mu sell courant bi ñu gën koo xëcc bërëbu fajukaay yi ñu defaral leen ko Maodo Dramé mooy wax ci turu mouvement ça suffit doy na fii ci arrondissement Maabo boo xoolee courant bi bu dee cinquante dëkk la benn dëkk moo fi am courant bu dee cent dëkk yi cinq dëkk rek ci côté poste de santé la war nañu am dix mais benn poste de santé digne de son nom wala ñaar nga fi mën a boo pare jeex na ambulance médicalisée amuñu ko amul lenn lu ni tey infrastructure la boo xam ne war nañ koo bénéficier ñu defal ñu ko suñu école yi doxul suñu plateau médical bi doxul kon nag tey ñu ñaan village yi nga xam ne tey ñoo ñoo composé arrondissement Mabo nekk 131 villages lu ñuy ñaan mooy nañ leen jox électrification rurale nañ leen jox ay poste de santé lampadaires yi ñuy séddale la ci Flexo Flexo na fi jógee wax neexuñu population yaa bi ñu ngi fay arrière yoo xam ne waruñu koo fay ñu ngi teg métti yoo xamante ni xamuñ fan lañ ko teg ñu ngi ñaan gouvernement bi di ko interpellé courant bi ak ndox bi ak équipement rural bi nga xamante ni tey soxla nañ ko mu indil na ko fi Omar Dramé li président Diadou Thier Nioro Kaolack ma dëkk ci diwaan bi fii muy Kër Sader la fa nekk ci population pour bu ñuy dem élection ëpp na mille personnes tey poste liggéey boo xam ne moo fa nekk ñu koy fay ñaareel ba teg ci mooy amuñ ndox sëfoor ci amuñu ndox amuñu courant loolu ñu koy dénoncé yoon wii nag sëfoor ci gisuñ seen bopp ci li nga xam ne moom lañ koy liggéey nañ ko defal ay tableau ku nekk ñëw fii xam ne yoon wi mais yoon bi amul kenn ku fi mën a ñëw ba xam ne tali lañ koy def wala raara loolu nag jàpp nañ ne yenul maana ndax sanc yi nga xam ne moom la defar képp koo xam ne dem nga fa da xam ne yoon yi ñuy artu nguur gi ak ñi nga xam ne ñoo jiite commune yi nekk ci arrondissement Maabo nee nañ nag seen jafe-jafe nañ leen ko saafaraal ca na mu gën a gaawee Maabo Mamadou Camara Sud FM Mamadou Camara dañuy jóge ci Maabo nekk ci Kaolack ngeen ñuy déglu ci 94 point 6 jàll ca Pakaaw ngeen ñuy teewlu foofule ci 96 point 7 foofule nag ndaw yi nga xam ne ñoo bokk ci juróom-benn commune yi bokk foofule ca Pakaaw fi mu toll leen rek leen ñor mooy ñu am ab euh, courant nag ñeneen ñeneen ñi ndax daal ñàq bi mu fa ñàq indi na leen ay jafe-jafe yu tara tar tax daal ba lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu sukkandiku mënuñu ko amal Moussa Dramé ay ndaw yi fekk baax ci ay dëkk dëkkaan yu tënk juróom-benn commune yu féetew ci pakaaw nekk ci penku diwaanu Sédhiou it bootu ci kuréel gi ñu duppee mouvement pakaaw en avant ñoom nee ñu seen yaakaar gi dafa yàqeeku lool ndax it courant boo xam ne moom la ñu war a indi ci seeni barab bayit ba tey jii la it njaw das na na aw xambin tey jii ci gaaw gi nag ñu dal di amal conférence de presse di janoog ba ñu def tasax xibaar yi ci ay leeral dañ ci teewlu Pape Daouda Cissé yore seen i kàddu ñàkk moom nag courant bi moo ne moo jël raw gàddu tey nag moom faaw ñu daje boole ci commune yi nekk pakaaw yépp communes nekk Pakao sax lañ ñëw ndax Pakao moom mën nañ ne moitié département de Sédhiou bi yëpp la commune u Diana Ba commune u Diana Malari bu Oudukaar bu Saakaar bu Saame Kanta ak bu Kolibanta pour xeex xeexu ñàkkum courant. bu ñuy sukkandikoo ci ay kàddoom na it ñàkkum yi de bari na wàllum wër gu yaram bi tey de ci Pakao gi dañuy gis ay jigéen yoo xam ne ci ci lëndëm la ay charrette ñooy teg pour mën leen ñoom duñ ne sax jigéen ñi waaye fii képp ku fi feebar nga nekk ci biir moom balaa ngaa egg hôpital da wax lu set parce que amul yoon yu baax sax déjà yenn saa dañuy gis ñoo xam te seen téléphone sax la jël di nit pour mën a xool li ñuy bëri dañuy bàyyi seen jàng tey de moom a utiliser ordinateur ne que ay commune yoo xam liggéey boo xam ne moom la nguuru Sénégal doore waaye sopp nañ lool mu gën a gaaw ndax pakaaw war a mën a am courant naka noonu it Daouda Sidibé nekk premier adjoint maire ne ne dañ ci war a dugal préfet yeeg sous préfet yi ndax it fi mu toll ni ngir lépp loo xam ne si moo jëmee ci soxla yi courant bi it mu saafaraw lu gën gaaw yokk na ci ne it Kolda ak Sédhiou ñoo bokk rawat na ay barab yoo xam ne it courant da ci tumuranke lool ki si doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. Moussa Dramé li xew foofulee ca Pakao nag utee lool li xew ci commune bu Goudomp ndax bu dee ñële dañuy ñaan ñu jox leen courant na mu doyee fii ci euh, Goudomp nag maire ba di dalal xel yi ne ñoom daal am nañu courant bu doy te dañ ko fas yéene sax yokk jëmale ci tabaski bi ñu jëm ñu déglu ko moom maire bi di Malon Vieux Cissé ci micro Moussa Dramé. bi may toog fii ci pouvoir bi dama ne ñaari xeex laa am ma ci loolu benn bi dëkk lëndëm na c'est trop doo a dox xeex ko yàlla indi na lamp tey commencé nañ ah ñu waree samp poto li ñuy wax ñoom les paniers la ñu ngi koy defar technicien yu bëri yi ñëw seen patron Ziguinchor ñëw na fii ma waxtaan moom ci lu yàgg ma ne ko non seulement bëgg naa mu gaaw mais bëgg naa poto bu kuy leer te gëm naa ne yàlla dina lool bu soobee yàlla balaa tabaski ñu toog ci dinañ pare li ci des mooy tali bi tali bi maa ngi ñaan guddoom ñu dolli ñu ñaan lépp guddoom pa boo jullee rek waxal ni guddoom yàlla ñu am tali comme fépp mën nañ koo am. ñu ngi ciy xeex ñu ngi ciy xar suñuy tànk tubéy pour ko guddoom am te in incha allah dina ko am. donc grattaal bi ñaata naa ci fukk million ak juróom. ci lu wér dénk liggéey bi waa RD ARD bu Sédhiou l' agence régionale de développement ñoom ñoo koy suivre ñoom ñooy contrôler demb bi ma ñëwee dama woo entrepreneur bi mu ñëw fii fii la yend guddaam jël naa oto dugg fu nekk xool macha allah amaguma tali waaye tey jii nag yow boo taalee sa moto boo taalee sa oto doo sonn di nga mën a jaar ma ngi ciy sant yàlla bu baax ki doon addu di euh, Malang Vieux Cissé di maire bu euh, Goudomp te dalal askan wi euh, seen xel jëmale ci wàllu courant bi rawatina nag koppar gi nga xam ne toll na ci fukki million ak juróom ci kopparu CFA bi nga xam ne moom la def daal jëmale ci wàllu tali foofulee ñu wax nag ci leneen loo xam ne fi mu toll nii moom la ñuy waxtaane fépp muy jafe-jafe wala boog fitna yi am ci diggante Israël ak Palestine ba lu mu néew néew daal euh, téeri doomi aadama ak ñaar fukk ñàq ci seen euh, bakkan moo tax forum social euh, moom daal li muy ñaawlu mooy daal tekk-tekkaaral bi nga xam ne moom la ci réew àddina yu bëri daal amal moo tax it ne nañu danañu amal benn pétition boo xam ne danañu ko amal ci juróomi làkk ay kàllaama nee nañ it ci euh, fan yi ñu jëm danañu amal ab doxaanu ñaxtu bu mag a mag jëmale euh, ngir jàppale Palestine ci euh, mbir mi ki xamle loolu le mooy Mignane Diouf di coordonnateur forum social sénégalais ñu déglu ko Mame Diarra Da Silva. bientôt benn semaine a ngi nii. ñu gis ne waa Palestine dañoo jóg dem Gaza fekk ay nit ñoo xamante ni ñoo ngi woon ci seen i jàkka ci seen i juma doon julli di jaamu yàlla ñu fekk leen fa buntu xataal leen dal seen kaw euh, mënate ñi yóbbu ñi rey ñi. gàññi eh, loolu bi ñu ko gisee ñu yaakaar ne xëy na ci foofu lay yem mais mu continuer di am une semaine démb ci ajuma ji ci 9 heures du matin tunuy membre yi nga xamante ne ñu ngi foofu ci biir Gaza ak biir Palestine loolu la ñu mbir di xam ne daal daanaka am na eh, téeméeri nit ak ñaar fukk yoo xamante ni daanaka faat nañ leen bombardé lépp loo xamante ni jàkk la donc bi ñu gisee loolu ñun nekk mouvement altermondialiste bu ñu wooyee forum social mondial ñu ne ñun dañu xool li ñu mën a def li mooy ci rapidement répétition internationale bind ko ci juróomi kàllaama yoo xamante ni anglais français portugais espagnol arabe mais itam ñu jox euh, ndigtal ne nañ fexe organisation yi bokk ci forum bi yëpp ci biir adduna gi ku ci nekk jël pétition boobu diffuser ko tas ko ci xabaar yi tas ko ci organisation yi ñu signé ko déjà suñu ñaar fukk ak ñaar téeméer ak ñaar organisation euh, signé nañ ko ci ñi bokk forum social mondial démb ci ajuma ji ñi doon yaakaar ne ñooy saafara mbir mi duñ ci wax dara comme ñoom duñ ci wax dara ñun mën nañ def pétition xamante ni ñoo ngi fii ci biir Afrique par notamment ci Sénégal xëy na yooyu yëpp ñu booloo dañu am loo xamante ni dañ ci mën a organiser manifestation boo xamante ni bu ñu yeggee boole ko ak pétition yooyu jébbal ko ambassade yi fi nekk ambassade yu Israël ambassade yu États-Unis ambassade yu Union européenne mais itam jox ko suñu autorités yi ndax xam nañ ne Sénégal mooy jiite umma islamique kon yooyu doon acte yoo xamante ni daal ñoom fi taxaw di ci waxtaan ak ñi ki doon addu di coordonnateur forum social sénégalais di Mignane Diouf muy wax ci fitna yi am ci diggante Israël ak Palestine mu lu ko lool ñeneen ñu koy nakarlu di secrétariat exécutif national bu LD Debout ñaawlu mbir yi bu baax a baax di soññ daal nguuru Sénégal moom mu fexe daal ba li ci doxalin def na ñeneen ñi daal taxaw temm ngir loolu lee dakk ci beneen wàll 8 LD Debout mi ngi soññ réew yi nga xam ne ñoo ne ci àdduna wërngal këpp ñu jël seeni responsabilité ci kanamu taarix fexe doxalin bi nga xam ne moom la premier ministre Israël di amale di amal foofule daal mu daq bu baax baax bu ñu jugee ñu des ba tey ci wàllu Israël ak Palestine ndax daal finn yi ñu fa nemmeeku ba lum néew néew téeméer ak ñaax fukki doomi aadama ñàkk seen bakkan tax ba tey jilee ci dibeer gi conseil sécurité bu euh, mbootaayu xeet yi di conseil sécurité organisation des nations unies dana amal ab ndaje bu yaatu yaayu euh, jaatoo jaatu euh, jaarale ko ci xarala yu yees yi jëmale ci loolu le ñu fàttale nag ñi sàq loolu lem bokk na ci Tunisie Norvège ak Chine ak ki nga xam ne moo teewal mbootaayu xeet yi ci Proche Orient ak it daal xam la nañu ne ñi nga xam ne ñoo teewal Israël danañ teew ci boobu leen ndaje ak ñeneen ñoo xam ne it ñoo fa nar a teewal euh, Palestine ci jamono joo xam ne tey jii ci suba waa armée israélienne xamal nañu ne it dal nañu bu baax a baax sox euh, këru ki nga xam ne mooy chef bureau politique bu Hamas te kër gi féete ci bande de moom lee mi ngi woon foofu le ni ñuy amal loolu le attaque ñu waxtaanee wàllu tàggat yaram dalal El Hadj Malick Ndiaye salaamaaleykum. waaleykum salaam absolument wala. Euh, dafa mel ne li ci gën a fës bokk na ci wàllu coupe CAF bi rawatina quart de finale ale diggante Coton Sport ak Jaraaf tey. tey jii lay doon nag à partir de treize heures lay doon fële ca Cameroun ci xaaj bu njëkk bi Jaraaf nag ñoom noppi nañ wàllale seen bopp na mu gën a rafetee kàddu yooyu ko ratal moo nekk SG bi Léonard Diagne jokkoon nañ ak moom fële ca Garoua ñu déglu buñ ca leeral. xale yi euh, waxtaan nañu ak ñoom Euh, wax dëgg yàlla ci délégation bi euh, coach bi wax naa ñoom président euh, chef délégation wu délé kii bi jaraaf bi mu di Youssou Diall vice président Youssou Diall tamit ba mu leen waxee loolu la c'est-à-dire dañ leen ne marché bi tey am na solo lool am na solo si yéen yéen ginnaaw ba ngeen àndee jaraaf ba mu dugg phase de poule yóbbu ñu ba quart de finale tey li am solo mooy ngeen jógee ci euh, juróom-ñetti meilleures équipes Afrique yi pour mun a dem si ñeenti équipes yi parce que demi-finale yi donc ce sera les quatre meilleures équipes donc loolu booy conscient nañ si lañ leen si tegal mooy euh, ginnaaw ba ngeen ñu àndee fii léegi yéen a ci des gën leen wane seen bopp parce que compétition bi plus nga siy avancé plus ñu leen di gis te loolu baax na ci xale yi parce que dafa di compétition boo xam ne euh, lu ñuy wax scout yi dañ koy seetaan partout d'autant plus que marché bi dañ koy wane télé yenn chaînes yi dinañ ko dinañ ko wane donc xale yi nee nañ leen wane leen seen bopp def leen ci seen fulla seen fayda incha allah rabi war ngeen mën a am résultat boo xam ne fii dinañu dimbali ci suñu match bi war a am dibéer bee di ñëw incha allah euh, Sénégal le le 23 pour que ñu mën a jàll fa étape euh, quart de finale bi egg si euh, demi finale. am nañu yaakaar ne si li ñu xale yi wan tey ba ñu entraîné ci waxtu match bi parce que beneen problème bi ci am mooy match bi bu ñaari waxtu jotee fii ci suuf si bëccëg mu di benn waxtu feecer Sénégal. donc si naaj bu tàng la tax fii tàngoor gu métti ya fi nekk tamit euh, tey wane nañ ko si entraînement bi xale yi vraiment wane nañu entraînement goo xam ne ci fulla ci engagement euh, jàpp nañu liñ ñu won ni entrainement ak état d'esprit bi ñu war incha allahu rabi euh, ci marché bi bésu marché bi di dibéer Euh, xale yi war nañu mën bu ñu wanee li ñu wanee tey ci entraînement bi bu ko defee war nañ fi war a mën a génn incha allahu rabi ak résultat boo xam ne dina yombal suñu match retour bi fee ca ca Sénégal. di fàttali match retour nag le 23 lay doon maanaam dibéer bi bu delsee lay doon ñu wax ci 16e journée bu Ligue 1 bi ak tamit tey jii match yëpp tey jii am nag bokk na ci Pikine ak Stade de Mbour Cneps ak euh, Ndiambour Génération Foot Dakar Sacré-Cœur Mbour Petite Côte AS Douanes Casa Sport ak Gorée. ñaar télérodage équipe bi di Teungueth FC ba tey ci wàllu Ligue 2 bi tamit tey ji dibéer yi bokk na ci Kër Madior Renaissance Amitié FC Linguère Duc ak Sonacos Port ak Thiès FC lundi yi doon démb nag ci samedi ji jamono Fatick ji Fatick dafa gagné jamono 1 à 0 euh, Wakaam ak Demba Diop 1 but partout Guédiawaye gagné Africa Promo Foot 1 à 0 xam say dimaanwan ñu sant ko gërëm ko moom élage Hadj Malick Ndiaye euh, bu euh, ñeenti euh, fii ak juróomi simili sax moo fiy teewaat ngir dégtal leen ñaareelu pàcc xibaar yi ci français fii la ñuy yem ci wolof bi ñu sant Assane Thioune bi ci àndaloon sant leen gërëm leen yéen yi nga xam ne yéen safoo rajo Sud FM di ko déglu saa su